waaye tabaarakallahu du doon ci sunu xam-xam comme ni nga ko waxee ci sa mbaax rek eh, yow xam nga lu ngeen sàkku ci ñun ñu war koo def waaye ci li nga xam ni for nañ ko ci jataay yi mag ñi te yàlla toujours day laaj ci alquran loo xam ni moo ko gën a xam waaye façon jàngale la mm. xam naa bala ñuy ñëw ci loolu mooy li ma waxoon dañuy laaj seet sëñ Babacar nit ki radiallahu anhu xam naa mooy kan sax du neex a wax mm. ndax al aarif billaahi moom nitu yàlla neexul a xam waaye zahiram rekk ngay mën a wax ak li nga xam ci jëfandikoom ci tasarufaatam bi jëkk mooy doomu Seydil Xaaji Malik la radiyallahu anhu ndax nit ki xam fi mu jóge ak fi mu bokk dina tax nga xam nu mu doon dunde ndax xam-xam yépp bi ci gën mooy xam sa bopp réer yépp bi ci yées mooy réeri sa bopp te man arafa nafsahu faqat arafa rabbahu ku xam sa bopp rekk xam sa boroom Seydi Hajji Malik mooy way juróom soxna Roqee Njaay di way juróom wu mu gane àdduna en 1885 génn àdduna le 25 mars 1957 kon 72 ans la dund juróom-ñaar fukki at ak ñaar e, wal baladu tayibu yaxruju nabatuhu bi idni rabbi walladi xabusa laa yaxruju illa nakida alquran dafa wax ni suuf bu baaxee boo ci jiyee mu jox la gàncax gu baax waaye suuf bu baaxul boo ci jiyee du la jox gàncax gu baax te ndab du seeb lu dul la mu def moo tax wuy jur wu baax wu jigéen mooy meññi doom ju baax Seydil Hadji Malick yàlla dafa def radiyallahu anhu mu jóge gaaya wut si xam-xam ndax comme Saint-Louis booba moo nekk capitalu réew mi mu di fa wut si xam-xam ay téere ba yàlla dogal digganteem ak soxna Roqaya Njaay xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ni tunkaxul baratu li maaliha li arbaati li maaliha aw li jamaaliha aw li nasabiha aw li diiniha waaye fadfar bi daati diini taribat yadaka nee na jigéen dinañ ko denc ngir askanam waaye askan wéyul ndax kullukum min aadama wa aadama min turabin yéen ñépp ci aadama ngeen jóge te aadama ci suuf lañ ko bind kon ñun ñépp ñoo bokk maam te buñ ñu seetee ñépp ci suuf la ñuy delluwaat minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taratan uxra la yàlla wax ci suuf laa leen génne ci laa leen di delloo te bu ma leen di dekkal ci suuf laa leen di dekkal moo tax inna xalaqnaakum min dakarin wa unthan wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum indallahi atqakum loolu yàlla wax yéen nit ñépp ñoo leen bind ñun yàlla ñoo leen bind ci benn góor muy aadam ak benn jigéen muy xawaa ma Mansour borom daara ji daan wax sumiyat xawaau li annaha xuliqat min xayin waaw dañ ko bind ci lu dund moo tax ñu tudd ko xawaa waaw mu ni sumiyat xawaau li annaha xuliqat min xayin mu ni ma def leen nag ngeen di ay giir ak ay famille ak tribu li taarafu ngir ngeen xamante Baye Mbaye doon def ko daan firee ngir ngeen coopéré waaye in akramakum ki gën a tedd ci yéen indallahi ci yàlla atqaakum mooy ki gën a ragal yàlla xadis mooy firi aaya la fadla li arabin ala al ajam wala lil ala ala aswad wala lil aswad ala al abyad illa bi taqwallahi yàlla nee na ngëneel arab gënul kudul arab mooy ajam ajam gënul arab ku weex gënul ku ñuul ku ñuul gënul ku weex lu dul ci ragal yàlla moo tax jigéen boo ko dee jël mën nga ko takk ngir askanam waaye ñépp bokk maam mu ni sallallahu alayhi wa ni mën nga takk jigéen ngir alalam waaye nit garab la day sëq ak ruus bu ruusee boo amul ngor dem <laughs> te ngor du soppeeku la mu ni wala taaram mais taaru wéyul ndax bay ma jéem a jóob daf daan wax ni liir bi jànq bi njagamaar bi jeeg bi soxna si <laughs> mu ni waaye nag fadfar bi zaati diini yonent bi nee na seetal ki am diine taribat yadaka soo ko defee rekk ubbi nga aas yàlla dogal nag gis nga war a athu xadijatun wa tuqaa wa zuhdu fiihi sajiyatun wal xayaau xadija dafa gis sallallahu alayhi wa sallam ay jikkoom mu ni kii duma rëcc waaw sëy naa ñaari yoon hindun tazawajaha min qablihi wa atiqun kiila bil aksi jàllallahu dul karam loolu la sa moo da wax hindun hind tazawajaha denc na xadija min qablihi jëkk wa atiqun ñu ne atiq mu ne xiila bil aksi ñi ni mu ni sax déedéet ñi nañ atiq moo jëkk hind topp ci ñi ni hind la waaye mu ne xiila bil aksi rek waaye jàllallahu dul karam <laughs> su maam Seydi Hadj Malick mu ni nag gis naa jikkoy sallallahu alayhi wa sallam la fexe ba pour lu gën a gàtt yonent bi denc ko parce que fasta banat xadijatun annahu lkanzu alladi xaawalathu walkimiyaau moo tax alquran ni at tayibaatu li ñi baax jigéen ñi baax nañu seet góor ñi baax wa tayiboona li tayibaat góor ñi baax seet jigéen ñi baax ñu denc leen waaye alxabisaatu lil xabisin wal xabisuna lil xabisat ngeen baal ma ci waxin bi waaye <laughs> ah jigéen ñu doy waar yi la ànd ak góor ñu doy waar ñi góor ñu doy ànd ak jigéen ñu doy waar ñi moo tax nit ku yiw soo ko mayee ku bon yóbbu nga ko safara jigéen ju baax soo ko mayee góor gu wëyu ne gu wëyu ngeen baal ma ci term bi sonal nga ko góor gu baaxit boo ko mayee jigéen ju mel noonu sonal nga ko moo tax nag tabaarakallahu soxna Roqay Njaay ni naa jaayante ak seydi Xaaji Malik nekk ak moom yàlla dogal waaye mag ñi duñu dugg ci mbir te seetuñu ko la eh, eh, laysa bi ghaibin man istaxaara wala bin wala binaa di min man istachaara Seydi Xaaji Malik nee na radiallahu anhu koo xam ni lu mu doon bala nga caa dugg istixaara ko doo def erreur koo xam ni bala ngaa def dara diisoo ca doo réccu mu tànn nag ay mag bokk na ca alxaaji Malik Sarr suñu maam moo jur sëñ Muniru Sarr ni ko seetal ma maa dégg ci parce que réew mi looy wax danga koy seet maa dégg ci alamin maa ko ko jottalil ma mu ni Seydi Hadj Malick ba mu déggee istixaaram ba génn def ni sedd Hadj Malick gis naa benn càllala leer bu déparé asamaan ba ci néegu soxna Roqaya ñu ni sa doom lay doon ak moom mooy doon sa xalifa abu Aboubacar lay tudd allahu akbar nee na Seydi Hadji Malick ni ko jàngal dog sàngam ma jàng dog sàngam ngir yàlla dëggal gént gi kat ku gént loolu alhaji Malick Sarr alhaji Malick Sarr ca buudi waaw ba mu ko istixaara diggante bi mhm. loolu la ko wax Seydi Hadji Malick nag mhm. radiyallahu yàlla dogal diggante boobu ah mais xam nga rek aada moom te soxna Roqee mbokk Seydi Hajj Malick la bokk nañ ca gaaya mhm. waaye moom sax-saxi ndar la ne nañ maamam bokk bokk na ci ñuy sëkk dex gi pour am ñu dëkk moom elle est Saint-Louisienne de souche moom soxna Roqee moom soxna Roqee waa ndar yi nag booba ku ñu denc mhm. jox la boroom kër dañ lay da koy jox ñetti téeméeri dërëm ba am ñu naan ah Eh, roqee de amagul ñetti téeméeri dërëmi ngurdi yi Seydi Hadji Malick jël ñetti téeméeri yi jox ko soxna roqee ni ko jigéen moo canam téeméer bi jox naa la ko hadiya bi jox naa la ko nga jënd ciy téere mhm. téeméer bi jox naa la ko nga ñaanal ma doom ju baax Seydi Hadji jël ñetti téeméer yépp dem ba ca marché ba jënd lépp ay téere allahu sëf ko ci ay puus puus ñëw jël ko ci digg néeg bi ni ko Roqaya yal na la yàlla may doom ju xam li ci biir téere yii yëpp ak li ci ginnaaw téere yi ak li ci ginnaaw téere yi waaw sëriñ Babacar Sy nga xam ni jaayante boobu la mm-hmm. bi ci des al maa ko jottalil mu wax ni dafa am jamono ñëw sëñ baabakar jël wagon xar yónnee ko soxna Roqee Njaay ca Ndar jamono tabaski la mhm. ni ko séddale ko bokk yi ka ko yóbbu woon ba mu demee soxna Roqee Njaay ni ko boo demee neel Babacar yàlla na ko yàlla bàjjanam fay yàlla na ko yàlla bàjjanam fay allahu akbar kooku ñëw wax ko sëñ Babacar sëñ Babacar ba mu duggee saxaar dem ndar ni ko waaw yaay li nga wax ki ma yónni woon laa bëgg nga leeralal ma ko yal na la yàlla ba yal na la nee ko yal na ko yàlla bàjjanam fay sono roqee ni ko waaw dama mësa a ñëw ni Seydi Hadj nit ñi day am na ñu may tooñ sax naan ma roqee day xamul njëkkeem Seydi Xaaji malik ni ma yow roqee yàlla mooy sa njëkke allahu akbar mu ni ko comme yàllaay sama njëkkee nag njëkkee mooy bàjjanu doom mu ni moo tax ma ni yàlla na la yàlla bàjjanam fay yàlla ne ko yàlla na ko yàlla bàjjanam fay ndax yàlla mooy njëkkeem eh? mooy premier njëkkeem <laughs> loolu nag nga xam ni kon yàlla def mu taawloo ca soxna Faatumata Si soxna Faatumata Si moom moom lañ dégg El Hadj Malick Sarr te mooy premier taawu taalibe El Hadj Malick Sarr. El waaw moo jur sëñ Mounirou Sarr. Mhm. ak sëñ Mbaye mi jur sama sëriñ soxna maam Daba Sarr. maam mhm. xam naa ne mu ngi ñuy seetaan sax moom. ñu ngi koy nuyu baax Sarr. tabaarakallaahu. Mhm. Eh, moo des ca Salonique sëñ Babacar si topp ci wax nañ ni sëñ Babacar radiyallaahu anhu mook tey siir ñoo maase. waaw. ndax Seydi Hadji Malick dafa dem ndomba Sanjiri. ndomba ba ñëwee ba Richard tool mhm. jàdd sa droite nii. dex gi moo séparé ñaari ndomb yi. ndomb àllarba ak ndomb Sanjiri waaw ndeysaan suñu bàyyi ba Seydou Wele. Mhm. bàyyi Seydou yàlla na ko yàlla dolli leer. ñun dañ daan wax ndomba àllarba mu ni ndomba Sanjiri la taalife tey si ndomba àllarba moo féete nii. moo féete ndeyjoor nii ndeyjoor ndomba Sanjiri féete nii. Mhm. dem naa foofa dem nga fa. foofa fa la Seydi Hadji Malick taalife tey bi mu ko taalifee nag ba di ko weer ci daqaar googu Dakar googu euh, ku ñuy wax Duudu Mbóoj mu ngi fii ci pikin mhm. moo ko moo fa tabax résidence ak jàkka ak école ca ca euh, ca Dakar ga Dakar gam doon dem naa fa waaw daqaar gi Seydi Hadji Malick doon weere tey siir doon weere xam nga lu ko indee sët Seydi Hadji dafa ñëw foofu bëgg yeesal njàpp amuñu fu ñu ko dugal mu ni naa jaayante defar fi résidence defar fa jàkka defar fa école kër gi ñoo dul publicité rek waaye loolu am na fa man dem naa fa dal naa ca résidence ba ca ndomba sànjiri ca ndomba sànjiri fi Seydi Hadji Malick weere nag téere bi Taysiir fi la gaal gi teer ñu jox ko benn lettre ni ko soxna Roqee Njaay kat am na gan gu góor fa la taxaw ni Aboubacar قبل الورى فعلى بسبعمائة عام الله رب تبارك آمين آمين تعالى قلوبا ربي يا الله رب تبارك أو رب تقدس أو رب تعالى علوا ربي الله إليك مادا يا دار رجاء مغفرتي سمحت يا الله يا الله رب تبارك آمين رب سبحان الله رب تعالى هنوان ربي يا الله رب تبارك أو رب تقدس أو رب رب تعالى علو ونربي الله صلي على سيدين قبل الورى فعلى بسبع مئة من ربي الله jërëjëf Cheikh Tidiane moo tax keroog nag bi nga xamee ni tudd nañ sëñ Babacar Seydi Hadji Malick ne maam Malick Sarr daf ko ni ndax mooy Babacar mi ma gisoon mu ni ko ah waaw mu ni ko ah, seen Babacar Babacar daala ngoog bu màggee ñëpp a xam <laughs> nga xam ni kon loolu pour wane rek tuuti ci asl bi euh, yàlla dogal itam euh, Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu maam Malick Sarr moomu ñu lay wax moo ko dalal alquran mm-hmm. te ca njarnde mook Sidi Ahmad si xam nga soxna Roqee Njaay ma nangoo ci al amin mu ni moo jiitu Seydi Hadji njarnde waaw waaw ndax dafa dajeeg góor gi Mama Amar te góor gi Mama Amar góor gi Gumba Amar moo ko jur mm-hmm. góor gi maam ma Amar nag dafa bokkoon ak Seydi Hadji Malick Daara. Mhm. ba ñu dajee ca Ndar la ko ni kii du malik Fawat mu ni ko ah kañ kii du maam ma ba ñu waxtaanee nag la ko ni man de sama baay mu nga ca njarnde e, dafa wax ni bu gisee woon ak fekk woon ak Cheikh Omar dina jaayante ak moom radiyallahu anhu Mhm. waaye xam naa ni su gisee ak yow lu mu doon mar wu mu da amoon ci Cheikh Omar dina ko faj ci fii ni ko nag mu nga njarnde ba mu ñëwee ndeysaan eh, mu ni ko suñu dëkk ba fu bari soow la njarnde dafa bari soow ca jamono boobu mhm. gis nga mag ñi ni ñu fonke seeni njaboot mu ni ko kon dinaa la booleeg soxna Roqaya mu dem njaarnde naani fa soow ngir fonk rek sa soxna loolu leçon bu rëy la ci ñun waaw eh, moo tax eh, même xasida bi mu def boole ko ko mook suñu maam soxna safiyatu ñan moom Seydi Hadji Malick na leen mm-hmm. waaw waaw yaa quratay ayni ya yaa quratay ayni mm-hmm. tuuba ilallaahi littaa'ibiina karaamatun minallaahi yéen sama ñaari nag yi bët yi muy soxna Roqaya ak soxna Safiyatu Ñang way juróom maam Mansuur ak maam Dabbax ak maam Habib tuuba ilallaahi la leen wax sax leen ci tuub gi ngeen nekke jëm ci yàlla ndax xeeti teraanga yépp littaa'ibiina karaamatu minallaahi allahu akbar moo tax ba mu fa ñëwee nag la wax maam Gumba Amar ni ko malik Faat Wàdd mi ma dajeel de ca Ndar xam naa ni soo ko gisoon mar woo soxla ci Seexu Amar di ko am te na la ko fajal mu ni ko waaye Ndar dafa bari tubaab te man ñemewu may tubaab waxal ma ko su ma nee ñëw fii xool nga mag ñi ba mu ñëwee wax ko ko Seydi Hadji Malick ñëw njarnde góor gi jaayante ak moom waaye ni ko nag dama lay ñaan leen nga toog fi ba ma faatu nga sang ma sàng ma jullee ma miraas ma dog a dem wax waaw waawi Seydil Hadji Malick jooju moo tax mu def juróom-ñaari at njarde sept mu nekk ko fa foofa nag la dalale la maam Malick Sarr dalale Sidi Ahmed ak Serigne Babacar Sy. ca Njarde ca Njarde man dem naa ba ca Dakar gam leen gañ daan jàngee ma ànd fa ak ay journaliste mhm. ñuy def investigation. visite des lieux. ndeysaan sëñ Serigne bi sax wax ni am na bis Seydi Hadji Malick ànd ak maam Malick Sarr ñëw fekk leen ñoom ñaar ñuy jàng Sidi Ahmed ak sëñ Babacar nee mu xool seen àlluwa delloo leen. daal ni Seydi Hadj Malick Sall sa ñaari ndongo yi xam nga leen mu ni ko ah, xanaa ñuy sama sang rek ma di leen jàngal mu ni ko waaw Amadou dey dafa duy ba feesal waaye amul ku ko ko téyel moo tax faw mu tuuru Babacar nag duy na ba feesal waaye am na ku ko ko téyel allahu mu xamoon ni Sidi Ahmad day dem day dem moo tax keroog bi mu bindee lettre jox ko sëñ Cheybatu Fall mu ñëw jox ko Sidi Ahmad ca Ndar Sidi Hadji Malick ni ko def naa la sama xalifa sama ginnaaw Sidi Sidi Ahmad daf ko nii def na li kër gi laaj ku mag jiitu waaye xam na ni duma fi fekk damay dem seen sëñ kër di ñëw mu ni ndaama lee di ñëw moo fi toog. sëñ Sidi Ahmed taawu Sidi Hadji Malick moo wax loolu moo wax loolu. te moom sëñ Abdou nee na Sidi Ahmed daan na gis 24 fois yonent bi sallallahu alayhi wa sallam par jour. allahu ma saana toog ci xaal ni ba wax rek. maa lu mu wax mu ñëw. wànnante ne nii nekk ci néegam benn soxna ñëw di kunkuni mu ni ko kooku du diw mu bañ a wax mu ni ko yaa may nëbbu xanaa mën naa laa wax boo wax la bis bi ngay dee ni ko di nga sëyi sax ñaari doom rekk nga fay am benn bi Alaaji Maalik lañ koy tudde kenn ki man te loolaa am waaw moo tax Sidi Ahmed moomu ak sëñ Babacar sëñ Babacar bi góor gi El Hadj Malick Sarr leen dalal ba waaye bi nga xamee ni ñooro nag jihaad ja toj na te góor gi Malick Sarr nekk yaayam nekk ca ñooro yaayam bind ko lettre ca la ko Seydi Hadj Malick ni dangay dem seeti sa wéyjur jël nag Serigne Babacar Sy jox ko Mamour Khoudia Sy hmm. Mamour Khoudia Sy nag ëmb du mi ko jul ak Ousmane mi jur Seydi Hadji Malick ñoo bokk ndey ak baay Mamour Khoudia si mooy way juru Serigne Moustapha si mi jàng burdu bi ci Serigne soxna Nafisatou si mm-hmm. jër jur ko mm-hmm. xam nga Seydi Hadji Malick li yonent bi def ak Sidna Ali moom la def ak Mamour Khoudia mm-hmm. xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mook Sidna Ali seen ñaari baay ñoo bokk ndey ak baay Abu Talib moo jur Ali Abdoulaye jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi jël Fatima jox ko Ali uh-huh. Seydi Hadji Malick nag moom Maam Mor Khoudia seen ñaari baay bokk ndey baay ama doog Ousmane mm-hmm. mu jël soxna Nafi si jox ko Maam Mor Khoudia si mu jur mu si mi sëy si góor gis nga loolu moo tax ci loxo Maam Mor Khoudia si ca kër Yoro Sadio foofu ci ginnaaw Tiwaawan mm-hmm. fa la sëñ kër si nag al alquran ci loxo tabaarakallaahu waaye daf daan wax ni eh, mës na ànd ak Seydi Hadji Malick fii ci Dakar mu yabal ko ci waajuru góor gi Cheikh Gassama pour mu dem jàngi fa ndax bañ àllu am tardé sëñ Babacar dem ba ca kër ga nuyook moom jëlaati bagage ñëw ba mu ñëwee Seydi Hadji Malick ni ko ah dangaa demul mu ni ko dem naa de ngir sa wax bi nga wax waaye nag dama bëggul kenn rax ma ci yow dama bëggul kenn rax ma ci yow rax ma ci yow. Mm-hmm. waaw moo tax mu jàngal ko moo ko jàngal nag ah tabaarakallaahu ni mu nekke woon ak moom nag euh, bés mu nekk ak moom tiwaawoon xëy rek ni ko mënatunoo bokk dëkk bi faaw nga sori ma xam nga dafa am marta ba boo xam ni boo ci nekkee tolle ki la war a wuutu du ngeen dëkk waaw da koy exilé mu ni ko teema dellu ndar ga ma jóge woon mu ni ko ndar dafa sori te suma la soxlaa doo mën a gaaw a ñëw mu ni ko ma randu si Louga mu ni ko mag a nga fa te bëgguma ngeen jote te muy góor gi Malick Sall moo jur soxna mu xayri Sall woy juru sëriñ Moustapha Sy Jamil radiallahu anhu mu ngi fii ci Tëngéej ci sëgi caw leen ñu denc faatu na ñu denc ko 36 ans après géej gi di ko dab moom soxnum xayri sàll ñu wax ko Seydi Jamil mu ni xaar leen ba ñëw ni de randal leen ko keroog bi ñu ko randalee wëñu perkaalam bi ñu fàttee dagg sax deñul ci moom kër gi ñoo dul xam nga kër gi dañu bëggul ay karaamaak yooyu waaw ndax Seydi Hadji Malick moo tëj buntu boobu. wuyu juru Seydi Mouhamadou Moustapha Sy Djamil Seydi waaw waaw sonum xëy na sànni. 36 ans ñu sulli ko. waaw waaw ju denc ko. dara sulli dindi ko. dara yàquwul dara yàquwul ca. wëñu wëñu wëñu perkaal wëñu perkaal bi mbaa daf ko fàtte. dañ ko dañ ko fàtte dagg ci moom sax waaye dañu. waaw akbar waaw. nga xam ni ah, loolu kay. Thierno Mountakha Taaha kay. <laughs> Mountakha Taha Taal kay def na ko fi. def na ko fi denc nañ ko fi ay at. mu feeñ Cheikh El Hadj Abdoul ni li ma doon tëdd ci Dakar di yax na. nañ ma yóbbu Louga nañ maa ngi fàttaliku keroog maa ngi taxaw Thiès nii ci buntu jumaay El Hadj Aman Njigéen fa da koon côté boobu. convoi bi romb ma nii ñu jëm ak moom Louga dara soppeekuwul ci ma. c'est tariqa bi dañ dul wax yooyu. Mm-hmm. ndax bëgguñu mm-hmm. <laughs> karaama. loolu moo tax nag mu ni ko ma ñëw cees mu ni ko cees dafa jige Tiwaawan mu ni ko ma dem dakaar mu ni ko dafa lëndëmandi ndax leer gi dafa sori may ñaan yàlla pour mu wàcceel ma ko ma tasaare fi salaatul fàtte waaye ku ne xam na ni def la ko billaahi mu ni ko ma dem tëngéej mu ni ko waaw koy tëngéej baax na moo tax nag mu ñëw dëkkoon nag moo tax alxalawaat ar ruxaaniya ar rabbaaniya yépp ci tariqa bi yi ci ëpp tëngéej la ko sëñ Babacar defe mu ni ko dell seeti del seeti euh, euh, Qadi Alioune mooy woy juru Alaaji Omar Dia bi ne woon daan def lettre musulmane mm-hmm. nee na su may ñëw ci Seydi Hadji Malick jaar ci moom tàggu ko su ma ñëwee ziar ko nee ba bés may ñëw di ziar parce que nee na dama daan def su ma ñëwee saxaaru suba lay ñëw Maodo ni ma dellul ci saxaaru ngoon bëggul ñu toog nee na yor yoru altine nee na ba ma ñëwee tàggu xaadi àllin ja ko damay dem seeti góor gi ne mu ni ma maa ngi lay ndokkeel ci sa xilaafa gi ne ma ni ko gan xilaafa ne mun ma gis naa Seydi Hadji Malick bërki biig mu tànn fukki mag ñii di dama leen di jiital ndax su loo leen fi bàyyee dañuy xajamal xilaafa Babacar te dama leen di tooy kon dama koy tooy nee na bi ma ñëwee Seydi Hadji Malick def ma ni ndax dangaa bëgg a dellu ne ma ni ko ah ci kaw nga pare ci man rek ne mun ma faaw nga fanaan ne ma fanaan talaata mun ma ma ñëwaat mu ni ma faaw nga fanaanaat ba suba nee ma fanaan ca àllarba ja ne mun ma faaw nga fanaanaat ba suba ne yoor yooru alxamis ma ñëw nee na mu ma waxtaan wi de du yàgg mooy da ñetti point la mooy maa ngi fii liggéey ñaari téere xamul munkiril jani ak kifayatul raghibin xamul munkiril jani lu ñu dugal ci tasawuf te bokk ci dinaa ko tudd kifayatul raghibin lu ñu dugal ci shariatul l'islam te bokk ci dinaa ko tudd bi ci des mooy nga dem defaree li ma zawiya ba ca ndar ndax ba ma koy liggéey aw woon doole dama yéene woon yàlla néeg rek te nit du sàggane alalam sa alal la demal nga liggéey ko bi ci des mooy ñi ma teg fii sama ginnaaw yow lañu xalaat xaw ma loo ci xam mu ni ko mën naa leen ko yenul de waaye ci charte mu ne ko ban charte mu ne ko kenn bañ maa xam ba ma jóge fi. kon Serigne Babacar kenn xamu ko fi mu toll nii. ah déedéet daan na wax ni diw tooñ na ma ndax dama ni woon bu ma kenn xam mu fexe ba ma xas ci mbooloo te la ma xas am te loolu day nuru wanewu <laughs> ak tasarufaat yi am yépp dafa ni dama nëbbu Seydi Hadji Malick ni ko li ma xam ci yow rek moo ma jaaxal de mooy fonk nga ma ak fonk sa àlluwa waaye dangaa jàmbure ba mu ëpp te nit ñi njàmbur du leen yor mu ne ko dama laa gisatul rek su ma la gisatul dootuma jàmbure kon nga xam ni daf ko tarbiya li ngay laaj ni lu mu nekkee woon ak Seydil Hadj Malick nee na am na bis ma ñëw Pire ci saxaar ci gaar bi nit ñaa ngi mës-mës yi nee na sama bët mu ngi tegu fa nga xamante ni fa laa daan toog suma ma masaana yenu valise yi ma Seydi Hadj Malick jox doxe Tiwaawan jëm Jaksa bu ma ñëwee fa may noppaloo en tant que doomu Seydi Hadj Malick mu ni itam lu lu lu defal taalibe di defal sëriñam defal naa ko Seydi Hadj Malick gas teen rek laa ko gasalul de mu ni te desal naa ko ngaale woo xamante ni ku ko sóob ci teen la cay des du bari nga xam ni moom tabaarakallaahu noonu la dafa woon ak moom fonk fonk Seydil Hadji mali radiyallahu anhu ci biiram yépp ginnaawam ginnaaw Seydil Hadji Malick waaw xam nga eh, loolu mooy xilaafaam ndax Euh, Seydi Hadji Malick mu génn àdduna vingt 27 juin 1922 te booba Seydi Hadji Malick sëñ Babacar Sy 37 ans la am xam nga 37 ans bariwul. Mhm. waaye dama ci wax ak sama benn waaye ndeysaan mu ni ma ku bëgg kurus la mu ni ma Ismulaay Zaki la tombeel Zaki. sell Zaï 7 CAF 20 yaa 10 muy 37. bi nga xamee ni Seydi Hadji Malick dem na sax bàyyi ko. am na ci mag ñi ñoo xamante ni dañ ko ni woon dañuy wut ku fi toog parce que sa âge dafa tuuti mu ni leen da ngeen a tardé ndax wuutu na Seydil xajumali Malick juróom-ñaari at. muy door a génn àdduna kon nga xam ni passation de service boobu. ndax bi muy wutu baayam amul 40 ans. déedéet bi muy denc ma Mamadou. waaw 37 ans la am. ñu ni ko sa âge dafa tuuti. ñu ni ko sa âge dafa tuuti dañu bëgg diwa ngi nii diwa ngi nii diwa ngi nii te mag la mu ni da ngeen a tardé parce que donn naa Seydi Hadji Malick juróom-ñaari at. muy door a génn àdduna nga xam ni kon te xam nga euh, bàyyi donn doom donn way jur ci mhm. tariqa bi mën nañ ni baatu xalifa ci moom la moom Serigne Babacar Sy bu ñu nee xalifa rek <laughs> xam nga lettre boo mës a bind boo bindee Alaaji rek sëriñ Alaaji léegi ñu yónni ko Seydi Hadji Malick waaw lettre boo bind ni xalifa ñu yóbbu ko borom bone carré bi lettre boo bind ni jibal xaw bi ñu jox ko Mame Mansour lettre boo bind ni dabbaax rek teg ca mu dem ca Seydi Hadji Abdoul Aziz Dabbaax lettre boo bind ni Jamil mu dem ca Fass waaye lettre boo bind ni maktum ñi jox ko al maktum lettre boo bind ni al amin <laughs> ñi jox ko ko waaye lettre boo bind ni borom daara ji ñi yóbbu ko Tiwaawan waaye lettre boo bind ni ñàkk caaxaan léegi ñu jox ko Serigne Babacar Sy Mansour ah loolu yàlla mooy def loolu nit dina dund ci jikkoom dundin boo xamante ni yàlla mooy xëy alsinatul xalqi lisaanul xaaliqi ndax al amin maa ngi fàttaliku radiyallaahu anhu dañ ko am ku ñëw wax al amin mu ni ko ah waa ku leen ni yàlla dama wóolu ba ngeen may tudde al amin ndeysaan am ku ko ni ah yàlla moo ko nam mu def ko ci làmmiñu nit ñi yow waxoo nit ñi ni leen tudde leen ma ko <laughs> nit ñi xëy xëy rek tudde la ko kon nga xam ni alsinatul xalqi lisaanul xaaliqi mm-hmm. looloo tax nag moom eh, mu daan wax ni bu ma kaañ juróon du tee ma doon xalifa cheikh ma mbay si nee na su ma doonoon oh. kaañ sax man duma tee doon xalifa Maodo duma tee doon xalifa cheikh mi ma doyloo ko fàtte di ñaanal xalifa ah, mbay mi fi nekkoon moo yoroon xilaaf gi bootoon njaboot gi Maodo si bootoon bilaay bu leen ko fàtte di ñaanal waaw te xam ni góor gi ku ko ñaanaloo yàlla defal la ko xéewal yi gaynde moo rëy ay may bu leen ko fàtte di ñaanal ah, xalifa may mi fi nekkoon moo yoroon xilaafa ji bëtën jabar ji Maodo si bëtën wallaay ma Maodo see jëkke ñaanal xalifa mbay cheikh ñaanal ko rasulullaay di ko tàmpe gi gaynde moo rëy ay may bu leen di ñaanal xalifa ah, mbay mi fi nekkoon moo yoroon xilaaf gi bëtoon njaboot gi Maodo si bëtoon ma Maodo see ko fi ba xëy ni góor gi na nga ñëw tey xalifa bi liggéey ba taayee ñuul ba gis añub yàlla ko fàtte di ñaanal xalifa ah, mbay mi fi nekkoon moo xilaaf ji bootoon gi Maodo si ku dem Tiwaawan démb góor ak jigéen ña fa ku ne sa ngéem nga ni est-ce que alaxira yu gan tey ko fàtte di ñaanal ah, xalifa mbay mi fi nekkoon moo yoroon xilaafa gi bëtoon jaboot gi Maodo si bëtoon keroog Rasulullah baay nga sañse nga sañse junjung yaranga di ko baakal alaxira yu gana tey bu leen ko faate xalifa mbay mi fi nekkoon xilaafa gi bootoon njaboot gi Maodo si bootoon ginnaaw yawmal qiyaama bu ku xës barang doo tardé ku am xalifa doo jaaxle yàlla di buur bi ko doole bu leen ko fàtte di ñaanal ah, xalifa mbay mi fi nekkoon ma yoroon xilaaf ji bëtoon njaboot gi Maodo si bëtoon wallaay maam xalifa nee su ma doonoon doomi kaañ sax man duma tee doon xalifa ma Maodo duma tee doon xalifa cheikh mi ma doyloo. bu leen ko fàtte di ñaanal. xalifa ah, mbay mi fi nekkoon. moo yoroon xilaafa ji bootoon. njaboot gi Maodo si bootoon. góor gi masula mooy boroomam. masula fecci wëllëreem. mësula doggi ak mbokkam wax lu amul xamul loolu bu leen ko fàtte di ñaanal ah, xalifa mbay mi fi nekkoon mu yoroon xilaafa ci bëtoon jaba gi Maodo si bëtoon góor gi mënul loo gis am na taala mbay sol bone kaare fonk wëlëree ci mbay laayam ndax kat fal ahdu masuulo bu leen ko fàtte di ñaanal e loxo ci borom boole kaari mi xabay mi fi nekk moo yore xilaaf ji bëtoon njaboot gi Maodo si bëtoon wallaay du dox di geestu gannaawam bëtam du xool lu dul fi mu jëmali yar bi ci góor gi moom mel ni góor gi yombul looloo. leen ko te di ñaanal xalifa mbay mi fi nekkoon moo yoroon xilaafa ji bootoon njaboot gi Maodo si bootoon yar bi muy yore ci mbooloo moom lay saxoo saa weetoo ngir bëtu bi ko sëppoo tax na du dul yoonoo bu ko fàtte di ñaanal xalifa mbay mi fi nekkoon moo yoroon xilaafa gi bootoon njaboot gi Maodo si bootoon wallaay boo ko mësaana présenté say àndandoo du leen fàtte saa yu la gisee di leen laajte xalifa moo mat a doy loo bu leen ko fàtte di ñaan xalifa حرمين في نكم يرى خلاف جيبوتن يا بوكي مود سيبوتن بالله بوكم مسان دي سخلا بمون بتك ان شاء الله nga xam ni góor gi mooy la raw saari leen ko lay bu leen ko faate di ñaanal xalifa ah, mbay mi fi nekkoon mu yoral xilaafa gi bëtoon njaboot gi Maodo wallaay bu daan doxantu ca kaw taaxam ti waawan faq di ko seetaan mu mel ni gànn ci seen yiiroo nar sa jamonoy maye lolo bu leen ko fàtte di ñaanal e loxo ci borom bari kaari fa mbay mi fi nekkoon moo yoroon xilaaf la ci bëtën jabar gi Maodo si bëtën billaay bu weeru koor wi ma saan feeñ ci Sénégal gi ba ca Congo balaa fajar ñépp yëg baay Abdul Aziz la koy waxaloo bu leen ko fàtte di ñaanal el ko ci al amin ba bay fi lafa jiboota jabati Maodo si boota giñ naa kori gi ñëw naka noonu tabaski ñëw naka noonu service bi tam naka Aziz Sy la koy doxaloo bu leen ko faate di ñaan xalifa ah, may fi nekkoon la fa jabaki mawdo si boto wallaay bu la mësaana mayitoo gaay ba jox la ëre ngir su heure bi jub see maam mbay taxaw na tem ci loolo bu leen tofaate di ñaanal moo fonk randi fu xalifa mbay mi fi nekkoon ma yoroon xilaaf waaw waaw waaw jàmba gi Maodo si boto wallaay naan ko abdu diw ñëw naam maa ko joxoon waxtu wi naam te góor dafay sàmm kàddoom daldi taxawul ci looloo bu leen ko fàtte di ñaanal xalifa mbay mi fi nekkoon yaa yoroon xilaafa gi bootoon jaboot gi Maodo si bootoon wallaay ku la mësaan indi ci moom boo dellusee te àndoog moom mbay laaj lu xew ngir maandoom asgor dafay gëstu démboo lay bu leen ko faate di ñaanal nee na juróom yi gor ko def waaw juróom benn yi nee na gor ko def waaw waaw mbay ne gor du xam fakk du tiit ba du ñàkk sàcc du soppeeko du jàpp baay am naw leen du dal dal yi xam leen looloo bay ne ko du xam du tiit ba fekk du ñàkk sàcc du soppeeku du jàpp bàyyi am na wuleem lu dal dalee xam leen looloo may ne góor du xam du tiit ba fenn du ñàkk sàcc du du jàpp bàyyi am naw leen du dal dalli xam leen looloo du xam fakk du tiit ba fenn du ñàkk sàcc du du jàpp bàyyi du dal dalli xam looloo xawaadisul xayraati cheikh ne na kenn du ko faate ci Sénégal li ko wuute ñépp ko seede ci loolo bay ne ko du xam du tiit ba feew ah, du ñàkk sàcc du soppeeku du jàpp baay am nawle taltale xam ne loolo wallaay magam yi mi noon jataayam duñ ko weccee ku dul soppeem loo leen waxit mbay la ñu gëm mag ñaa ngi nii laaji leenu ko may ne dootu xam fàcc du tiit ba fen ah, du ñàkk sàcc du du jàpp bàyyi am na wule ah. du dal dalle xam leen loolu wallaay magam yi mi noon jataayam duñ ko weccee ku dul soppeem loo leen waxit mbay la gëm mag ñaa ngi nii xam ngeen loolo mbay ne ko du xam fàccu du tiit ba fen ah, du ñàkk sàcc du soppeeku oh, du jàpp bàyyi am nawleem du dal dale xam leen loolo moo tax xale yi judd ci ginnaaw mbay gi si ñu mbay te mbay la gëm xale boo ci waxal mooy maamam bur yàlla moo ko ko jagele xale yu juddu ci ginnaaw gisuñu mbay te mbay la ñu gëm mbay la ñu gëm waxal mooy maamam bur yàlla moo xale TFM ci ginnaaw mbay mooy maamam bur yàlla moo ko ko jagele xale yu juddu ci ginnaaw bay ah, gisuñu mbay ta mbay la ñu mbay la ñu gëm waxal mooy maamam bur yàlla moo ko ko jagele wallaay xale yi juddu ci ginnaaw bay gisuñu mbay te mbay la ñu gëm xale boo mooy maamam pour yàlla moo ko ko jagale xale yu juddu ci ginnaaw mbay ah, gisuñu mbay te mbay la ñu gëm mbay la ñu gëm waxal mooy maamam pour yàlla moo ko amin pour yàlla dolli la sargal bur la téero bur yàlla dolli la téeral Cheikhal Khalifa sunu maam booy te dolli jàmmal njabootam ñi àndandoo di siyaare xale yi juddu ci ginnaaw bay ah, gisuñu bay te bay la ñu gëm bay la ñu gëm waxal mooy maamam bur yàlla moo ko jagleen bay yaa oustaz loolu defe naa eh, jar na jar na ay addiyo yu bëri ñu